soxna yu baax yi mu ngi lay dalal ci jàmm asalaamaaleyka yow doomu aadama soo jàqee wala nga jaaxlee wala sax mbir yi metti ci yow bul xalaat kenn bul wuti kenn bul dem fenn dëppal nga dellu ci sa borom subhaanahu wa taala ndax sa borom rekk mooy ki nga xam ne moo la mën a fegal lor waaye moom rekk mooy ki nga xam ne moo mën a njool di njariñ sëriñ Tuuba xaadim rasul dafa wax ne adduru wa nafu min arrahmaani laysa min al bidaani wa suudaani lor ak njariñ ñu ngi ci suñu borom subhaanahu wa taala mi borom yërmaade gi waaye nekk ñu ci nit ku xees gi wala nit ku ñuul gi kon na bokk ci ñi nga xam ne bu leen coona dikkalee bu leen xat-xat dikkalee bu leen dañuy wax ne seen borom doy na leen te ci moom la ñuy wéeru suñu borom subhaanahu wa taala dafa wax ne képp ko wéeru ci yàlla doyloo ko sa borom dina la doy sëkk wéeruwaay xalaatal bu baax. te nga fàttaliku te fàttalikukat dina jëriñ ku ragal yàlla soxna yu baax yi page yu la mu ngi lay ñaan nga aimé sa page Facebook abonné ci sa YouTube te yaatal ko say xarit say am di jàmm